al imaam boo xam ne dafa ñëw ci actualité amaana nag ñu bari ñu teew suñ génnee noonu rek mën nañuy wax ne lu xew wax ku ko dégg da nga xam ne dara xew na jombul li xew ñu bari mën nañ koo xam waaye boo demee du ñàkk ay benn benn yoo xam ne buñ génnee dañuy laajante lu xew bëgg leen a fàttali li xew li xew moo daal mooy la daan xew rek mooy tuuma joo xam ne saa bu ñu demee ba amuk dal dana am ay nit yoo xam ne ñoo jóg jëmaleeti ko ci ahlu sunna am nañ mbokk mu baax nekk ab gëstukat bu mag ci suñ réew mii day faral di wax ne am na ay kuréel yu nekk ci suuf di liggéey yoo xam ne seen yitte mooy ak jaamaarloo na am ci diggante kuréeli diine yi fi nekk te buy am na am ci biir lislaam dafa mel ni ñooñu nag seenub liggéey jamono yu ne su demee ba bëgg a dal dañ koy xambaat ca ay at ci gannaaw dan daan xëy rek jékki-jékki gis ab journal bind wala télévision wax ñu ne centre bi di jàkka ji ak daara ji génne ay terroriste moo ko tax a jóg tuuma joojee di dem ñuy xool ba mu yàgg ñu gis ne fii kat imaam yi fii xutba ak jàngalekat yi fi jàngale seeni wax nëbbu tuut adduna bépp a nga koy déglu waxuma Sénégal waaye fépp nga koy déglu ñu ne fii kat kon ndeke ñu responsable ñoo fi nekk li ñuy wax day mel ni amul ñu wëlbatiku xool gis ndongo yi fii génne ñi bokk ci ñi ëpp jom ci réew mi ci liggéeyal seen diine ak seenum réew ñu ne kon tuuma jooju doxul nañ seet leneen ñu dem ba jëmmi jamono mbooloo daje fi béréb ñu ne ñoom kat ka leen jiite moo fi bindoon yéefarloo mboolem magi lislaam ak mboolem mag yi nekk ci réew mi ba ñu waxee loolu wax ko ci seenub télévision tasaare ko fii laa leen tontu ci ab ba ne leen loolu yi ñuy wax nañ ko indi li fekk ñi ngi dund nañ gëstu ci li ma bind buñ ci gisee luy wax ni diw sàngam ab yéefar la muy magum lislaam mu dëkk Sénégal wala mu dul set mu dëkkul Sénégal nañ ko indi fii su boobaa danaa am courage su taxaw ci kaw mbooloo mi ne ah lii kat maa ko waxoon waaye maa ngi koy weddi ne leen nag may naa leen ñuy seet fii seenu dund di jeex su jeexee na seeni doom ñëw bu sët yi doom yi jeexee na set yi ñëw boobaak léegi gisaguma ku ko indi li xew nag démb wala bëkk démb noonu ñëpp noo jékki-jékki rek gisandoo ko noonu xamuñu sax lu xew ay mbooloo yu jékki-jékki génn nee nañ fii ci Pikine lañ nekk am ku ca nekk ku xam ñuy wax ne diw sàngam ak diw boole ci sama tur ñooy saaga kilifa yi génne sama photo wane ba mu fés ak yeneen i photo lakk ci kanam nit ñi wan leen ne nii ñu def photo yi danañ leen ko def xam nañ seeni kër fañ nekk danañ fa dem xam nañ nàngam xam nañ nàngam jëmm ja doon wax ba mu daaneelee ñeneen jëli parole kenn ku nekk wax say wax loo xam ne lépp ba jeex tey menace la ah loolu nag mbir la mbir la ci mbir yi daanaka suñ cell ju yàgg ak lu romb lu ne ñu dañuy bàyyi noonu mu jàll loolu bu yàggee am na lu muy indi loo xam ne day nuru ak yameel waaye nag taxawaay bi ñuy taxaw te bu doon benn te du soppi ko bu soobee yàlla tax mën hëj la mooy di dalal ndaw ñi bi loolu amee yónnee nañ ma ay son yu bari yoo xam ne ay ndaw yi ahlu sunna ñoo koy waxat ci ay groupe ñu ne nan jël photo yi seeni kilifa ñoom ña ko def génn noonu itam def suñu vidéo lakk ko saaga leen comme niñ saagaa suñu kilifa ndax kat ñii doon lakk yowuñu ci lakk photo ak menacé waaye àgg nañ ci saaga ba àgg ci sax ay waajur waaye soo bu ma ci jot bu ne dama ne leen déedéet loolu du yoon wi yéen seenub yar du yarub saaga kilifa te kilifa ga ngay génn di lakk ab fotoom moom deful dara amaana kii koy tuddoo sax xamut kon kilifa ga bul lakk fotoom boo ko defee da nga ko tooñ bul ko saaga boo ko saaga da ko tooñ am na yeneen yoon yu ñuy jaar jëmm ja doon wax xamees na aw turam waxee bay daaneel tudd na koo xam ne doomi kilifa la wax na santam waxu turam wax turu baayam ne kon yow sëñ diw li nga ma doon def loo def naa ko kon loolu li nga ci déggee mooy ñooña seenu jaaxle àgg na ci jël ay mercenaires moo leen dese léegi ndax ña fa daje woon ñu ci ëpp ay mbër lañ ak ñu nekk ci làmb ci niñ ma ko waxe su fekkee ci ñooña lañ mujje nag ñoom la ñuy fay ñi génn di wax wax yi mel noonu ak di ko jëfe jàpp naa ne mbir moom yi li ñu bari di wax di wax ne dëkk bi amul yoon man gëwma loolu gëm naa ne dëkk bi am naw yoon jëmm munta taxaw bëccëgum dara kam ñi di ko vidéo muy wax mu tudd nit jaar ci turam tuumaal ko ne dafa saaga kilifa yi gën a mag ci réew mi tudd seeni tur wëlbati ku génne photoom lakk ko boole ko ak di ko saaga ci ñaari waajuram ñi xam la xam kilifa gala yabal ak ndeyam ak baayam ñu bàyyi ko muy jàll noonu loolu moom wax dëgg réew mi wut nag foofu ndax kat su fekkoon ne kenn ci yéen ñii moo jóg def loolu yi ci mbedd bu noppee jarul ñi koy porter plainte procureur mooy ñëw jël si ko te saa si su fekkee nag nun suñuy der àggagul foofu suñuy tuur itam xëy na yu woyof la suñuy mbubb mbubb yu woyof la ba tey waaye nag dana nattu yoon nag ba xam yoon niñ koy waxee daa am ci dëkk bi wala amu ci kon mbir mi foofu la toll xutba bi lépp ci loolu la jëm cheikh Mor jazaahullahu xeyran leeral na mën hëj bi nga xam ne ahlu sunna ci la ñuy dox muy aw yoon woo xam ne ci lañ jaar te suñu ko yéene wàcc fas ci yéene dëgër itam nag suñuy dund ci la ñuy dund suñuy wuy suñu borom it ci la ñaan suñu borom wuy ji ca suñu borom jaral na nu it nag lu nekk amuñu fi àdduna it loo xam ne fonk nan ko ba àgg ci nin fonke alxuraan ak sunna suñ ñàkkee lépp dese ko alhamdulillah ñàkkunu dara waaye nag li ma koy waxee su ci dara felloon suñ nenoo yéen a moom àdduna li ci biir it dañuy nax pert nan noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu saxal nu ci dëgg kon daal mbir mi foofu la toll li ci war lépp insha allah des na ko def wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amin